Grégoire ndax xeex bi moom la ñuy privilégié wala li nga xamante ne moom mooy moom mooy bëri bi quelques secondes parce que nag cette fois yi neen dina attaqué. ba lu mu tàmmul def est-ce que bu ko defee dina ko jig wala mën na ko luy question la mais li ma gis pour Siteu chance bi mu nar a am rek mooy mu déjouer ko daan ko ci poids déséquilibre déséquilibré ko pour mën ko daan parce que la de guerre moo ko ëpp rallonge moo ko ëpp masse mais est-ce que bëri ba. ñoom ñaar bu ñu ne runkum daje bëri est-ce que cité dina am doole boobu. foofu la ko question bi nekk. est-ce que am na doole léegi fan la ko mën a jaar kon ba daan ko cité. cité ah. mu déjoué ko ci fois déjoué ko rek mu nangu bëri. la la. la ko moo yomb. c'est ça c'est euh, doon wax sànq la dëgg mooy mbër bi gën a attentif pourtant day attaqué. mais mbër bu attentif si la mbër bu défensif da koy wax bu gisul lu leer du dem. mais comme que combat bi jël initiative pour dem. bu taseeg booy bi bu mu jiwaat. donc problème bi nag yàlla wala de ko yàgg quelque chose ni ñu ko yàgg dégg muy dëkkuwaate di def li mais bu demee ba le jour. jour combat bi nga gis attitude ah,